comme ñu ko tàmbali defee rek saa su nekk noonu lañ ko defaatee tey ma ànd seeg sama consœur muy Fatma Dia ñu ñëw euh, togg ki nga xamante ne mooy Niang Bou Ndaw diggante Niang Bou Ndaw la woon ak Bour Sine coow li bëri woon xas-xas loo bi bëri mais lépp ci jaayoon combat bi la yàlla may ndam ki nga xamante ne mooy Niang Bou Ndaw ñu koy wax félicitation di encourager ki nga xamante ne mooy Bour Sine di ko wax ne ki ko daan war na ko daan làmb la mun ta weesu làmb ñaa ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw Paul maa lay fay maa lay fay bu baax ginnaaw ma sant yàlla sant sama ñaari waajur ñaanal sama pap fu mu tëdd yàlla ko yàlla yërëm ko àjjana xam nga soo doon toog sama jumukaay seex bu leen nuyu bu baax ñu seen waa kër a du nuyu waa waa Guédiawaye bu baax a baax di leen sant di leen gërëm bu baax gis naa tamit mobilisation kontaan naa si ñoom bu baax a baax a baax. du nuyu ñëpp di sant ñëpp di jégalu waat ñëpp. aja Paul ñu ngi lay ziar di ziar ñëpp ñu fi ne comme que ñaar euh, temps amul wax dëgg yàlla daf ñu ko def rien que pour cër bi mu ñu jox comme que day génn aja nañ doxal ci question yi gars yi. ayca ñaar ñu ñëw ci combat bi yaakaar naa waxoon nañ ci mais dinañ ci waxaat dañuy ñëw directement si sa diggante ak Bouur si bi arbitre sifflé mu ne biñ ko jëlijee mu ne xam na euh, pièce bi ngeen ko teg da ngeen koo bëgg a da ko ñuy 11. ba tax na tey mu mel ni loolu moo ko teree xeex mais dañoo ñëw ñu doon xaar xeex comme ni nga ko waxee woon lan moo waral ñàkk xeex bi. man xeex naa de xanaa seen combat bi. non comme sampu taxaw. cinq minutes moo ko bëggul moom moo daw sampu jaaga bi di. moom moo daw sampu jaaga bi ñëw ñëw ñëw bëri si mais ma bëggoon xeex ak moom wane wane nañu wàllam man dama complet nee naa la àdduna lu si nekk daam app app bu ci doonee ñëw man xeex laa njëkk a jàng. waaw xeex laa njëkk a jàng sant Jacques boo yaa moom ma fa fayaloon ba bëri gu ma sax arène. ah bon sànni si si si per tool yi maa ngi koy ñaanal suñu borom a yërëm xale ko bu baax mais a kot su roon ñoom zil ne ku na làmb da ngay ñëw man lépp wane lépp. Mm. parce que combat yi si kanam bëri na waaw. Mm. mooy loolu. bien ñaar ñu gis ngeen jàppante nga mel ni ko wàcc jugaat gars yi ne bu entraînement amutoon tey musiba dafay am. waaw foofu amoon foofu lan. foofu dama ko dóor góos mu daw daal ma sàcc bëgg ma. bu ma dóor plaque ma génnee sama loxo léegi ma ko fàqee léegi man jàpp ma ci ngemb li te su ma forcé mën naa rëcc def kat appui léegi ci laa génn tas yaakaaru bëri na jàkkaaroo waat ak ñoom. da nga gis ne xëy na bu xawoon oyof am. non am na doole moom non bëri nañ buur am na doole na parce que ma ko fàqee dafa raam jug. non jàppoon ne maanaam bi nga bi mu la fàqee noonu nga rëbb da nga ne mun am. non naa mu rëbb quoi ma féete ko kaw. mais man foofu instant jàpp mu quoi pour mm. ma bàyyiwaat. pour mu jug laa wax diisul. jàppoo ne daa diis. non non man maa ko bàyyi fu ñu defaat leneen ma daanee ko leneen. Hmm. action yooyu kenn du ko forcer. maanaam yaa def lu la neex. waaw action yooyu kenn du ko forcer. Fatma doxalal. acca ñaa euh, sa diggante Bour Sine laay wax. waaw da nga ak say moom tey nga jël sa mag muy Bour Sine nga jël ko coow li bari. Hmm. ci cadre xeex. Hmm. nga am loo ñu wax ba nga jógee voyage ne combat bi dafa am foo ko teg ne te Bour Sine li nga waxoon yëpp tey da nga koo da nga koo jëfee tey ci biir combat bi ñaar doon natt boppam. wala tey da nga doon wan tey mbër mi. Mhm. moom moo ñëw non dama am lu ma métti xam dama am lu ma métti. Ah, lan moo du kenn sax. daa ah. am combat bu ma bëree mu war mu yàqu ma jël Tapha Gueye déw ma dégg lu ne. yaa may dégg ah. laa mu yàqu xam nga ma dégg si wax ñu nekk parce que man li ma fi def waruñu ko fàtte quoi. lan nga dégg lan nga daan daan dërëm. loolu rek jeexal na làmb. Mm. yaa ngi nekk li ba mm. ma jox ci ruum moom moo tax ma vasé wu pour wan ni léeg-léeg daal mënu woon defar rek. d'accord maanaam bi nga daanee tarbaxa loo dégg. loolu. comme du combat xam nga daal rek. du combat koo xamante dem nga Gambie voyage def sa xaalis. ñëw ba semaine combat ñu ne ki nga bëri du na la toog a perte. Mhm. mën na tam contrat normal tënk man nekk sama yoon. Mhm. moo tax. loolu tax nga doon voyagé waaw moo tax ma dem jël bourse bu diis bi ñëpp mën a mujjee génn ma jàpp ko ah. daan ko. waaw gis nañu fa 3 mois suma juumul. Mhm. ak ay ak lan la woon pour voyage bi da doon yokk poids wala dafa du buur siin sama carrière lay samp. du buur siin laay moo tax ma génn waaw itam naa liggéey naa am naa cent vingt kilos. Hmm. man nu ma neex mën naa ko toll si laam. Hmm. waaw ma ñëwee itam dindi ah, dindi war naa bi ci ay ay semaines yu gaaw. Hmm. xam nga tey war a wan la pour waa Guédiawaye ñu xam ne suñu ma jàppalee dinaa nekk champion. ok waaw. ñaa gars ne ñi dem Maroc ñëpp. ak ñaa dafa am différence. Mhm. bi nga nekkee Maroc lan nga fa nekkoon ba tax nit ñi ne ñaa bi mu demee Maroc ak ñi demoon différence am na. man ma demee Maroc 5 heures du matin laa doon jug fu ma doon entraînement yi a sori 5 heures du matin chaque jour ah, ma jël taxi sama xaalis di jeex ma jël biis bi. Hmm? di jël bus bi toog si bus bi di entraîné suba ngoon di ñëw pour nga gis ma Maroc sax ma génn ci mbedd bi entraînement yi ma gis ma jóge géej barki borom daal géej ak jour màggal Tuubaa bi noonu. laa génn toog si gars yi parce que tey xam nga waaw sama famille. Mm-hmm. ñooñu war a dimbali ko waaw. Mm-hmm. waaw dañu sonn sama papa dafa sonn géejawaay. Mm-hmm. amu fi kër amu fi dara ba gaañu. waaw dama doon ñaan mu fekkee léegi sama yaay sama yaay sonn sama ay mag sonn man waruma fooyee sama nekk nii dund naa fi si ba xëy gaañu. daal maa sama ay mag yàlla def dara si man. kon loolu du ko caaxaanee quoi. waaw pour man fu ma su ma toogee sanguwuma du ma ko xalaat. mais su ma toogee dama entraînement dama koy xalaat. dama war a jàppale sama famille. ñaa ah, ah. euh, ñu ñëw ci li nga xamante na mooy ci combat bi. da nga simmeeku ñëpp apprécier par rapport ak bourse ñu ne Lac de Guiers chaque jour bi Lac de moo koy def wala tey finition bi ñaa moo ko nga de Guiers nit ñi. maanaam lu ñuy wane noonu loolu ay séquence la rek xam nga tey ñaamu ndaw daa am image tey man sama génération dafa maanaam moo fekke publier entraînement damaa fekke génération boobu nekkul maa ko war a génne quoi sama génération la yaa ngi léegi man loolu loolu ñu wan noonu ay science la rek loolu entraînement yi loolu ay science la leen woon dagg dagg rek mm. mais li may liggéey rek du ma ko sax wane mais liggéey ngeen du lu ah. loolu du génn mais liggéey ngeen bu baax liggéey contact mu simmeeku contact ak man bàyyi léppam contact ak man di jàppanteeg man di simmeeku di mbëkkanteeg man. di contact di contact. xam nga kooku ma fayam daal la de guerre. Mm. waaw victoire bi dama ko ko may. di ko wax ni ko man maa ngi sukk say tànk waaw sa rakk sa lépp laa. di ko ñaanal combat mu ngi Siteu yàlla yàlla may ndam bu sedd guy incha allah macha di ko ñaanal ndam Alioune Seye 2. waaw ayca wàllu yëpp ñaanal bu wàllu gars yi ñu am ñu bëri. Mm. comme man. ayca ñu ñëw si sa euh, adversaire xam nga lambu day tàngal yaramu nit. ñu jëli ko mu ne ñaa bu ma daanee ma bàyyi làmb tey lan nga koy wax ci loolu. non non loolu dara waxul làmb la rek moom dara loolu waxul làmb la rek Boury ko xam ne mbër la wax jee nekkoon nii mais man xam naa ne mbër daa doon bëreel. Hmm. moo tax ma dagg sama billet 500000 dem Maroc di fay di fay salle mutilation 160 000. 4 mois loolu boo amul woon làmb bu métti ko def hmm. mbër la. sama grand la suma lépp la champion man buur man dama ko bëgg parce que jàmbaar la. Hmm. waaw billaay wallaay. ah bon buur si ma ko supporter parce que gaynde la day taxaw xeex bër mosu woon si làmb ñàkk fayda. waaw billaay wallaay. Uh-huh. soo ma dee beneen combat bu bu am mbir gi yàlla ko yàlla may ndam. Uh-huh. léegi jël bi jël bi ñëwal ñu si jël bi. jël bi waaw foofu la nii foofu hmm. foofu damaa jàpp si ndémb li xëcc ko mu doon génn géew ma xëcc ko ma xëccee léegi mu doon ma épicule bëgg ma jël kuum quoi. léegi ba ma dóoree perculé ma boobu léegi moom mooy daw def day flexionné léegi moom yëpp pour tuur ma ma génnee sama loxo jël sama boob bi teg ko ci loos bi te tànk bi daa koy ci sànni ko. nga ko waaw loolu mooy poto lampe la dëgg poto lampe yi. loolu mooy poto lampe poto lampe buum yi ah, waaw mooy buum yi waaw poto lampe yi la. Ah, bu daw na jël ma plaqué na def na lépp. Mm. waaw mais liggéey mm. liggéey rek moo am moom. Mm. xale heure liggéey liggéey rek. lamb jëm tëkku heure daf dara. gars yi liggéey rek ku liggéey rek di nga di nga bëree ñëpp. man loolu laa xamul loolu laa gëm. Ah. ma toll nii dama toll si liggéey. waaw dama toll si job pareegu ma. Ah. nekk gu ma mbër mbër laa bëgg nekk. Ah. boo ñaa lan la conseil. boo ñaa dama koy nuyu. na ma 500000. waaw di ko nuyu bu baax. waaw woo na ma ma ma tey. ma tey dal. bi. ok waaw boo ñaa sama waay la. nuyu jabaram day mari jàpp na si tam bu baax ñoom xam nga ñoom kanji tafa kanji mm-hmm. ñoom góor yombul Assane Fall Global Textile xam nga Masata sama papa Masata papa Mama xam nga tey Guédiawaye xam nga euh, maa ngi nuyu itam euh, booy Serigne Gambi jëlal na ma bologu bee booy Fallou jëlal na ma bologu bee ah Assane Mbodj jëlal na ma jàpp na si. jàpp na si bu baax a baax waa gars yi dañ ma jàppale. Mm. waaw du nuyu waa Guédiawaye tey ma dama ñëw ba si jooy. waaw xam waaw dama waaw émotion waaw dama xam ne daan war mu daan war mu daan waaw mu doon deesa war mu daanu d'accord waaw ñu ne Ndiabou Ndaw da doon natt boppam fee ca euh, nu mu tudd stade Amadou bari tey ba nga ñëwee nga xewle nga nekk xale dëkk biir Géejawaay mu nekk loo xam te ne su ma juumul Balla Gaye moom moo ko fiy def tey Ndiabou Ndaw tey jël li nga xam te ne moom mooy risque def ko mu réussir loolu nan la def Balla Gaye su ma kilifa dama ko nuyuwaat bu baax di ko ñaan bu rafet mm-hmm. waaw di ko wax ñun ñoom seen rakk lañ rek mm-hmm. ñun duñ mës a xëcc si muy Sa Thiès Balla Gaye Thiat Boy Alioune Seye dara man su ma ne di benn mbër succès sama ker yàlla yem fi man bàyyi daaru laa borom daaru waxuma loolu waaw dana ma mel ni mel loolu ma borom daaru digal borom presse bi dama jox waa Thiel Guédiawaye liggéey wan leen liggéey wan leen fulaak fayda ma xam ne man fu ma dañ may topp gars yi naan du fees mu gëm sama boobu rek gisoo gars yi jàpp si moo tax sax aw ma ay zëmi aw ma ay zëmi war naa am ay cent zëmi xam ma rek waaw mooy loolu mm-hmm. waaw moo tax mu demee noonu mais su ëllëgee dina si ut ay zones bu baax góorgóorlu si di sant waa Guédiawaay bu baax man xale laa ma war a jàppale Guédiawaay nan nga tuddee jàppale. waaw loolu loolu dañu ma jàppale rek. Mm-hmm. dañu ma jàppale da nga doon bëree pare da nga doon am ay bor boo bëree ba pare bii na am naa bor un million deux cent <laughs> ah de. ci bii tamit barki Serigne Touba Mbacke. mais barki borom Daaru Noor parce que wala moo tax. Ah. man dama nekk ni ko xamante ne man laa jàmbaar laa bàyyi daaru laa du ma xaar. nit di indi alalam may toog di xaar nit mën na ma faussé man su may ñëw jël sama alal def na ma war a def bu ci fekk si da fekk si ma si mm. si ma xam fekk woosu ma si man noonu laay dundee quoi du ma xaar moo tax may dem lépp def mm. waaw mais nag lu may wax laay waxaar Guédiawaye su ma jàppale ma nekk champion su ma jàppale wu seen doom lañ seetaan mm. léegi règlement CNG bi ñoom suñuy père lañ suñuy kilifa lañ yaa ngi dégg mun am leen sut mais ñoom bu ñuy def règlement dañuy war a woo ñun acteurs yi ñu def ban ñu toog ñu waxtaanee suñu papa lañ parce que làmb ñun la ko wax ñooy acteurs yi. Mm. yaa ngi bu ñu toogee nag ñaar mu ndaw ah li leen gis règlement bi kat léegi lii gis xam nga ñun ñu wax suñu xalaat donte sax ay xalaat lañ moom mi génnee seen xalaat ñu teg si table bi xool xam nga defar mu rafet. parce que ñoom tam làmb lu baax lañ ci bëgg waa defar mu baax ñun suñ kañ peel ñu ne ñu ñoom la ñu defar mais tey tey dama kontaan ci VAR bi. waaw ak tam ñuy ñaan maanaam ki yore mepp nga dugg si géej bu dee loolu ñu ko dañuy yor micro. yor yor waaw yor xool yooyu waaw waaw nañ nañ nañ nañ aj niveau bi ah, ah. waaw lamb dépassé na yooyu quoi loolu méttiwul loolu seerul eh. paaw dafa war micro bu sonné rek mu wuyu ah. da taxaw di yuuxu ba sonn di la dégg <laughs> waaw aj niveau bi quoi waaw loolu seerul waaw métti na mais man moom lamb su ma la wax rek man entraînement laa gëm waaw leneen deuxième ak billaay wallaay jàng màgget gi ngeen doon sargal kan la liiru waaye sama papa la kii sama père la kii moo ma juddul fii kii dafa dafa doon fekk ay jamono ma nekk xale may dund leneen dem di ànd ak di dugg xam ma ah, di dugg su nekk mu dem ba sama yaay na sa doom ji xam ma waaw kalaame ma sama yaay mi ngi nii mu bàyyi ma fen na sa doom ji xam ma fu muy fanaan fu muy dugg boobu xam nga rek esprit xale te boobu li la ma bëggaloon man liiru sax ñàkk moyen sax moo tax ma ma déko demoon noonu bëggoon naa ko jënd ay montre ak lépp. waaw te te lii xoolal dama koy décoré waat kii amuñu ah, fayam. ah dama koy décoré waat joxuñu ko dara. daa waaye kii kii kii nu waaye waaye kii bëree kenn bëree wut ak nit. ba mu bëri kii niveau maanaam liiru. Ah. niveau dépassé na. lekk na avance dépassé na ay takk ngemb. waaw ba ma waay kon bu naree takk ngemb. ki tam lu bëree ah bu lu xale. yéen a moo ko def loolu par force dañ ko koy nangul. ku nekk avance bëre ko. Ah. mais ku lokkati ko sa frère Maguette Seck ñu gis ni combat bi. waaw bëggoon na ko lool. ba ma toog si plateau moom laa ko may. ndeysaan parce que da see sonn. na ma bu dee liggéey rek mooy maye xam nga abaay naa ko ti set dugal naa ko ti set ndax parce que moom sama boobu ñu bokk néeg ah. ñoom tuuti ñoom jogo ñoom bukar xam nga ñoom booy ñu bokkul nekk xam nga dugal naa dix sept ou dix foofu noonu si jéel bi Abdoulaye Naar Mbour dugal naa dix sept waa Mbour xam nga gars yëpp mooy loolu hmm, léegi nag comme que da ngay dem euh, dañuy ñëw ci li nga xamante ne xaaral liiru dina ñëw fu ñaa jëm ñaa fan la jëm Abdoulaye Xaaj Ndiaye laay déglu rek kese du ma tudd tudd kenn ah? Abdou Lakhat Ndiaye la déglu sama bëre ba ba ma waxee Bour Sine gay da ngay bëre. maanaam a diis Bour Sine bu ñëwoon nga. voilà sama bëgg nag dépassé mooy loolu. liir waaw maa ngi déglu Abdou Lakhat Ndiaye parce que mooy sama kilifa. soxna si kaay seen bu baax sama maman Marie. kaay bi sama maman Marie maa ngi ko nuyu bu baax a baax baax a baax sama maman Xayta. maa ngi nuyu xayta bu baax a baax a baax joor waaw ñu may jàppale ñëpp maa ngi leen liiru kaay ayca jaan bi. Diourou Kaay. xaaral ah, non bu dagg pareegul. jugal yow. Papa Diagal. non xaaral xaaral xaaral xaaral de xaaral rek. non toogul xaaral. xaaral rek. waaw xaaral dafa nanga liiru pare. mu yàkkam. toogal. Fan ma sukkal nga téye ko noonu. xoolal indi ma wala après ma lii la. xam ah, nga Khoudia Mbaye maa ngi nuyu bu baax Gaye Sall Aram waaw Ndeye Maguette xam nga ñoom ñëpp waa kër gi xale yi ñii nii ñooñu ñu mën a xale yi ñoo doon supporté ba benn bëfat ñu amoon benn robe hôtesse ñoom ñëpp sama ko baax ñu koy sol ñu ñoo ma cotiser ay sang doon def fii xam si club waaw kii moom sama làmb waaw moo koy làmb quoi. maa ngi nuyu bu baax ndeysaan moom Ndeye waaw du nuyu ñoom Marème ñoom Ndang Mbaye waa kon bi yëpp waaw sama yaay Mbaye ak ñoom mënu wax su moom lu bari quoi waa mais yàlla laa koy bàyyil kii te mujj wax baaxul waaw bu doon moom dara du baax quoi am koy sant bu baax a baax a baax dee moom day baax di sant sama jigéen ñoom Adam Cumbe rahmatullahi ñëpp parce que ñoom laa débuté Khady Diop xam nga Mariam caam xam nga Ndeye xam nga Ndeye Khady xam nga di nuyu ñëpp waaw ñoom Soora ci maa ngi nuyu bu baax maam Diarra Ndeye Ndiaye xam nga waaw ñoom Nang Mbaye koy bi daal ku ma limu la dama juum di sant waaw di waaw na si daal musuma gàntu daal waaw musuma gàntu ci dara waaw jàmbaar la xam nga àdduna doo xam lépp wax lépp mais nuyu naa bu baax gërëm naa bu baax bu doon moom bu moom dara du dox. day ñaaw dara du dox laa la wax. dara du dox. mais sant yàlla. ayca ñaaw waaw kontaan xam nga di nuyu ñu may jàppale ñëpp xam nga maa ngi nuyu booy Serigne borom Gàmbi Serigne dina na ma bologu bee Serigne sama doomu ndey nuyu naa ko bu baax a baax a baax xam nuyu naa ñëpp gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp